su ñu demee nag ba salaatu foofa lay waxtoom door di jotee su boobaa jullil ñaari rakkaa su la neexee nga dem ba ca jàkka ja jullee ko fa bu la neexee nga jullee ko sa kër jëm ca jàkka ja ñaari rakkaa ya ci mazhabu Malik fatiha rekk lañ cay jàng waaye boo ca dollee fatiha ak ñaari allam yi imaamu Ghazali yi wax na ci téere bu nga tuddee Ihya wa Ulumi Diin yàlla dana la musal ci pexeem noon dana la musal ci pexeem musiba yu bari moy fatiha alam nasrah benen ba nga jang fatiha ak alam tara ci ñaari rakkaay fajar yi moy yi ngay julli doora julli ñaari rakkaay suba yi nek farata yoy ñaari rakkaa nak yu fajar ya buñ koy julli dañ koy yelu duñ ko biral ñaari raka yu am doole la dolem mom kenn rek lañuy fai fay ci mboolem sunna yi bu la faté ba julli woko jant bi fenk man nga ko fay ba bañi julle tu subar foko fa julle baxna yonent bi daana wax ne sallu rakaatay fajri walaw taradatkumul xaylu dee leen julli ñaar rakkay fajar donte da ngeen nekk ca guerre nekk ca armée ba di xeex tamit bu leen ko faat waxaan na ci beneen riwaaya ne rakaata fajri xayrun min addunya wa ma fiha ñaar rakkaay fajar moo gën àdduna ak lu ci biiram kon nañ ci taxaw di ko góorgóorlu suñ mag ñeeg mën a jàngale yi dañ daan wax ne sax ñaar rakkaay fajar ku ko julliwut dee ni rek la yàlla may mu xëy julliwul ko te du dee waaye yooyu yëpp wane ne foor na rek nag mu ne picc moo gis mu xëy dee rek fa julli ñaar rakkaay fajar xaar moo gis mu xëy dee wala nag wala gëléem te julliwul ko rek dafa dafa dafa koo julliwul moo tax mu dee waaye yooyu yëpp nag nekkul ci téere yi waaye suñ mag ñi lépp luñ lay jàngal bëgg nga fonk ko dañ koy taqaleeg dee ndax dee moom kenn ñemewut ko moo tax ñuy wax loola rek. kon ci julli ya la ñaar rakkay fajar naka noonu witar ci julli ya la witar amna na So julle te ba sa julli jeex ci guddi gi jullil ñaari rakka nga tuddé ko safa bu paré nga julli ben rakka mom kenn tuddé ko witar cheikh na tijaani dafa wax ne tusubaar boo boko julle day toqaar du heek nga julli takusan mom kenn mo xam doole rek nga julli selma rek mu heek ndax moy salatul wusta di alquran ne inna xaafidu ala salawaati wa salaatil wusta nga julli timis mu toog xaar nga julli jeem mu toog xaar boo witaree rek nag mooy tabaarakallaahu euh, laaf yi nga xam ne mooy yéegal ñeenti julli yi moo tax moom dafa recommandé ne witar nañ koy fay witar loo xam-xam doole la loo lekk-lekk ndigg ci naafila guddi waay boo jullee tee gee boo mënee defal fukki rakka nga indi safa ak witar muy fukk ak ñett yonantu bi kan naa weeru koor ak loolu weeru koor mosta passé loolu Aïcha moo ko wax Ibnu Abbas ne mosta passé juróom-ñetti rakkaa ak safaak wi muy fukk ak benn ñaari hadis yëpp wér nañ boo ko bëggee dëppale ngay wax ne bu xatul rek mu def maanaam fukk ak benn euh, fukk ak safaak wi bu xatee rek mu def juróom-ñett door indi safaak wi kon googa julli am na doole muy salaatul witri hadis ba ngay wax ni inna allaha witrun yuhibbul witra yalla dafa wet motax mu bëgg witar mu wet mi di ben rakka soko julle nak moy mooy laaf bi yëkkati sa jéem sa ñent julli moy yëkkati suba moy yëkkati tusubar moy manam timis moy yëkkati ge takusan mom moy salatul musta ba juli koy julli ba ngay selma rek la yëkkati bopam yene ci dess nak nag da ngi nga ko qiyas kat ci na kat sunna farata yaa ngi nii di nga xooree sa koor gi nattoo muuram koor te man koo natt koor ga dañ koy xaj ci diggante asamaan ak suuf boo nattee muuram koor rek koor ga nu muuram koor moom mooma di sunna yëkkati ko mbokk yi ñu di nuyu di leen ziara ANACIM moo leen indi seen xibaar météo waat nañ ak pënn ci bisub àllarba ji te incha allah jàpp nañ ni boori ajuma ci la pënd bi nar a tàmbalee wàññeeku ci réew mi en tout cas ci li gën a fës waaye fii ak alxamis muy ëllëg dinañu wéy di nemmeeku pënd ci daanaka réew mi yëpp ànd ak tamit euh, incha allah peex boo xam ne dinañ ko nemmeeku bu baax bu ñu jàllee ci géej gi rek muy ngelaw yu am doole yoo xam ne ñu ngi leen ko doon yégal fan yi weesu incha allah ëllëg alxamis ci ñent fu ñeenti waxtu ci ngoon incha allah la nar a tàmbalee dem donc euh, dina laal nag mi ngi ci côte bi yëpp sax nag ngelaw goo xam ni dina weesu incha allah ñeent fukki kilomètres te ci noonee nag bu ñeent waxtu ci ngoon jotee ci la tàmbali incha allah di di dem donc bu ñu woyee animation satellite mbokk dinañu gis incha allah nii liñ fi daan faral di am fan yi weesu yëpp moo nar a wéyandi incha allah loolay am guddi waaye tamit ëllëg ci digg bëccëg ak ay ngelaw yoo xam ne dinañ ko nemmeeku ci boori bët gànnaaru réew mi ak penk nelaw ngelaw yoo gaaw xaw am doole tuuti te dina laal daanaka code bi yëpp kon nañu ko yëgalee ci alert bi jëm ci wàllu géej gi bu ñu xoolee prévision guddi tey jii nag. dinañ ci gis euh, daanaka ñaari pàcc ndax euh, boori digg réew mi température yi dinañu xaw yokk tuuti ndax euh, température bi gën a kawe dina toll ci ñaari fukki degré ak ñaar te ca Kaolack lañ ko nar a nemmeeku waaye bu ñu xoolee ca digg réew mi ba soo sax nag jëm boori penk dinañu nemmeeku température yoo xam ni dinañu toll ci diggante ñaari fukki degré jàpp ñaari fukki degré ak benn kon ni ngeen koy gisee waaye ca bët Saalum moom ak ca bët gànnaar température yi gën a néew foofee lañ ko nar a nemmeeku ci gox yooyu fukki degré ak juróom-ñeent lañ nar a nemmeeku ca Casamance bi yëpp muy diggante Ziguinchor ba Kolda fukki degré ak juróom ñett incha allah la ñuy xaarandi ca Kédougou dinañ ko amaat incha allah ca Matam waaye ca boori bët gànnaar ca Podor fee lañ nar a am température bi gën a néew nar a tolloog fukki degré ak juróom dinañu gis ni sax boori Saint-Louis tamit température yu toll ci fukki degré juróom ñett incha allah lañ fay xaarandi muy ab peex boo xam ne dina fi desandi bu baax waaye jàpp leen ni poussière bi tamit noonu nee la nar a gunge peex bi diggante guddib tey jàpp ëllëg ci fajar bu ñu demee ba ëllëg digg bëccëg tamit incha dinañu gis ni bu ñu xaajee réew mi xaaj bi féetee bët gànnaar lu dul Thiès mii ngi ci nar a am fanweeri degré ak benn température yi du ñu sax àgg ci fanweeri degré ndax température bi gën a néew dinañ ko nemmeeku ca Ndakaaru mu nar a tolloog ñaari fukki degré ak juróom-benn mu tolloo lekkoog Podor dinañu gis ni tamit Matam lu toll noonu incha allah la nar am ëllëg ci digg bëccëg dinañu gis ni nag lii gën a kawe ci pàcc boobu dina toll ci ñaari fukki degré ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñi ngi koy xaarandi ca Bakel waaye tamit ca boori Fatick jàpp sax boori Mbour mais ca bët Saalum foofee la température yi gën a kawe nar a féetee tàngoor boo xam ne dina tàmbalee dugg si nar a jugee ci boori bët Saalum di yéeg progressivement fan yi di ñëw fanweeri degré ak juróom-ñaar incha allah la yaakaar am ci diggante Ziguinchor Sédhiou ak Kolda xaw a yéegaale sax ba diggante Tambacounda ak Kaffrine fanweeri degré ak benn nag mooy température bi Kédougou nar a am ëllëg incha allah ci digg bëccëg ànd ak boo xam ne comme ni ma leen ko waxee dina fi desandi fii ak alxamis di jot fii ak ajjuma sax nag di jot ci la nar a tàmbalee di dem nànk nank waaye jàppale ni bisub ëllëg alxamis incha dina fi desandi bu baax ci réew mi ànd ak tamit ngelaw goo xam ne dinañ ko nemmeeku mais asamaan si moom li ci gën fës mooy ay niir yoo xam ne dinañ fa doxantu si ci guddi gi waaye tamit ëllëg ci bis bi ànd ak température yoo xam ne dinañu desee kawee dinañu wëy di desee kawe te péex boo xam ne dinañ ko nemmeeku bu baax ci guddi gi ci boori bët gànnaar ak bët saalum waye tamit ci digg bëccëg tamit ab peex buñ nara a ci danaka xaju rew bi féetee ci danaka boori beut ganar boori penk digg rew mi tamit akso soo yi ma dellu si di leen fàttali euh, xibaaru ngelo gi nga xamni mo nek ci boori geej gi inshallah allah ci diggante tay japp ëllëg sax nak ndaxte bu ñent fukku bu ñenti waxtu jotee ëllëg ci ngon ci lañ ko nara a ci la nara tambalé dem waye ngelo nak japp fum tolni mi ngi laal code gi yëpp. te weesu na ñeent fukki kilomètres donc ñu leen di ñaan ngeen di woy euh, di bàyyi xel xibaar googee nag incha allah ngir mën a mucc ci ay gàllankoor yoo xam ne mën ngeen ko ci jëlee li moo neewoon seen xibaar météo mbokk yi di leen ñaan nag ngeen di woy di topp xibaar yi nga xam ni ñoo dikkee ci ANACIM ci xarale yi di leen dig daje ëllëg incha allah di leen ñaan a jàmm mbokki xarit yi ñu ngi leen nuyu bu baax baax ah, di leen ah, jaajëfal euh, c'est un réel plaisir de vous retrouver comme euh, tous les matins ci seen émission bi di euh, salaam ñoo ngi jégalu démb gisu ñu mais aujourd'hui on est là et alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax merci ci teewlu merci ci temps bi ngeen temps mu Malika TV mu leen di bëggal ci suba teel gi seen émission salaam nee leen lu dul salaam salaama ko gën kon yàlla ñu defal euh, salaam ju sax dàkk fii ci réew mi ak feneen euh, fu dul réew mi teewlu ngeen li nga xamante ne mooy yóbbalu bés bi ñu toftal ci nga xamante ne mooy wàllum euh, météo gis ngeen température yi macha allah dëkk bi sedd na mais aussi ak poussière boo xamante ne mu ngi wàññeeku ndànk-ndànk en espérant que tout simplement fii ak suba moom Euh, ci li météo météo pour poussière bi dina disparaître euh, complètement allah alors légui euh, légui ci kanam ci li la revue des titres de ce matin on va nga Mariama Traoré toftal ci walum actualité bi nga xamantene Abdoulaye Mbow dinañu ko commenter mais ki di Maymouna Bessane Faye madame Cham elle est parmi nous ce matin mais aussi Ndiogou Sissé est là ci kanam aussi dinañu fekk si ci diine ji loolu yëpp bu ko dëxëñee boole ko rek mooy nekk seen émission salaam de ce jour béni bien sûr du euh, jeudi 21 décembre 2023 mes téléspectateurs de Marika TV jërë jëf bienvenue alors on va dire d'abord bonjour à nos amis sur plateau balaa ñuy euh, ànd ak yéen ànd ak ki nga xam ne Mariama ci wàllum actualité gi ak euh, lu ñu mel alors comme je l'ai dit Maymouna Bessane est là jekk mu sóor tagal taarkaala macha allah merci beaucoup hein? kontaan naa tagal waaw dama tagal def fi mag tuuti. waaw xam nga léeg-léeg da def pantalon def chemise. mu laal mu jar nga def musóor bi mu xaw a fashion noonu. Mm-hmm. mais comme tey damaa laal robe bu def xaw a def taay maam. Mm-hmm. tey laaj nga xaw a wengal musóor bi tuuti am jëmu mag. <laughs> maa ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu El Hadj Mbow. di nuyu Ndiogu Cissé sama doom gi. Mm-hmm. di nuyu ah aussi waaw. Njoogu sa doom la. Mhm, sama doom la. waaw nga dëgg de. waaw Badou moog petit papa ma ci kër gi. ñoo maase. <laughs> Seydou da ngaa dégg nag mu laa bëgg man di nuyu aussi ma tey nag mu génn ci rouge noir de. <laughs> waaw xale bi dafa fashion Seydou tey gis nga li ngeen sañse waaw.

asalaamaaleykum Abdoulaye. waaw nu ñu jóg rek. ah nu ñu jóg nu ñu jóg. caméraman bi gën a maa xool ma xam ne. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay fay bu baax sëñ Nourou ñu ngi nuyu bu baax Alaaji Njóogu ñu ngi nuyu borom musóor Ben waaw nga dëgg au bi benn bi moom Afrique la. waaw waaye bi boo ko Ukraine la. Ukraine waaw. së wax nga dëgg Ukraine nii la ñu saya may seetal guerre Ukraine maire di di di kaas noonu lii la ñuy génn ñu la ñu takkee seen bopp yi de. mais boobu yaa dégg. waaw di ex URSS. léegi kan moo dem Ukraine. ah. laa ji laa. ah yàlla baax. laajal Ndiob. Seydou kan moo dem Ukraine ak kan moo des. Afrique ah nee nañ daal beneen Afrique beneen Ukraine la. waaw saya ban moo des Afrique ban moo dem Ukraine. ah waxtaan leen yéen ñaar bu jubóo rek. léegi yéen ñaar da ngeen fas yéene waxtaan rek xool ban moo dem ak ban moo fi des. baal nañ leen. <laughs> Ndiogou maa ngi lay nuyu di la jaar mon lay fay. di nuyu nga Ablaye Mbow. di nuyu comme doomu na ma bàyyi ma yaayoo ko rek. Ah, ak ma yaama di nuyu téléspectateur yu Malikia yëpp. Mhm. voilà. incha allah yow ci kanam dinañ ànd ak yow donc ci euh, wàllum kàddu ndaw ñi incha allah. am na am na am na kii nii ay tëstan. buñ ah. ko yóbboon carte mon <laughs> ñu génne la <laughs> <laughs> as bi yàgg. c'est c'est problème mooy man nag man waxuma man damay kii rek. <laughs> ay xale rek ñoo fi toog. ah ay xale rek. xale vingt et unième kese ñoo fi toog. Ah, vingt et unième yàgg na <laughs> de. xale yi judd ci vingt et unième bi bii. Mhm. Euh, tarkaal. yàggul. vingt et unième siècle la commencé. l'an deux

maa ngi lay nuyu bu baax a baax sànq Mounas mi ngi koy wax. Mhm. Euh, macha allah da ngeen da ngeen sañ seeti. Mhm. ah waaye waaye euh, Seydou sa sa ensemble euh, costume bi ute naag yi may taseeg 8h Kër Massar. <laughs> Ah! <laughs> waa Kër Massar ay waay Kër de. ba pare di la ko. non tase si yenn yow xam ne Seydou. Ah. ah man daal damaa waar xam naa ni seddaay bi daal. parce <laughs> nañ ko waxtaanee de ah, war nañu dimbali rek ci ci seen kii yi. a ne ko Mbadou yu papa we mbaa doon sol. yu papa we <laughs> naa yenn saa yi daal nga tasi daal yoo xam ne Seydou. ah doy na waar. wala manteau Elton John. non ah c' est c' est pas les moyens parce que sedd bi boobu daa jékki-jékki rek daal ni béll ci kaw ji ji. ah waaw waaw taay moom moom yenn saa ma dégg guddi gi ngelaw li di wëlis wëlis goo xamante ne. daa xaw la wala xawati. c' est célibataire yàlla de dee. jërëjëf. bilaay dama leen yërëm période bi. kadet bi dama leen di yërëm ndeysaan. célibataire. Mhm. Ah, démb rek maa ngi gis SDT naan ay war naa am jëkkër ak lu ne gis naa lu leen <laughs> ak sëli marié yi. ah sëli sëli marié xam nga luy sëli marié. luy ñii dund loof bi a distance. ah ñooñu kay ñoo ñoo léegi daanaka benn la rek. waaw wallaahi ñu de. Mhm. sonn nañu Sénégal moom daanaka lu ne xew na fi. Eh, lu ne xaw na. Mhm. mais lu ne day jàll rek. lu ne day jàll waaw ah, ah, baax na. waaw baax na. menggoda

Uh,

3 année makar des journalistes noné nak loko ko daal di fësalee euh, ci xëtam bu njëkk nak ci natal bi également ñu mëna gis jëwriñ bi télécommunication lolé nak euh, bokku na ci li nga xamné dal mo gëna ci journal bi lee wàllum jangat euh, bës bi ak li nga xamné modi kon yenn ci ay parti historique yo xamné nak mom Ali Saleh dafa daal di samp ab laaj japp ni ab mort des partis historiques bokku na ci nak parti yi nga xamné nak dañoo fësoon lol té ay at a amuñu nak ab candidat bo xamné ne na leen jëm ci présidentielle

deux minutes pour l'essentiel dama cee gis sama ñaari Moussa Bokar Thiam Avec <laughs> le doyen Babacar. Babacar Diagne oui. Babacar Diagne damaa gis l'association des jeunes reporters. C'est mm. di koy décorer. waaw. mais Babacar Diagne ñii mën faire fee tëj un mois ngeen leen di décorer quest lan que vous di décorer ah ñii ku ñu lan la décorer je suis désolé on ne peut pas fermer une télé dans une année un mois ña ko defoon cour suprême dan len ngeen len di décorer. lan lañ len di décorer bu dé yow ci association bobu nga bok <laughs> seen président lu mu tudd. mi ngi marem. mais grand tonton mi ngi marem xam nga association jeune bi nag da ngay ay paa ñofay nek nekk naan jeune reporter mais mi ngi marem mon frère toi aussi. faut revoir ces choses là. en non je suis désolé mënuñu tëj une télévision pendant un mois arbitrairement ak li fi xew yëpp état de droit ñaata ñëpp dañ ko ñaawlu fi signalu euh, Sen TV ñaata yoon hein? ngeen di décorer je suis désolé on n'a rien contre Babacar Diagne on n'a rien contre sa personne mm-hmm. mais l'institution quand même mm-hmm. on a quelque chose à, à, reprocher à cette institution mais les décorer quand même pour dire qu'ils ont fait un travail magnifique en tout cas moi je suis pas d'avis peut-être que les avis sont partagés ku nekk ce gis-gis mais Moussa Bokar yo jam ñalle ah. <laughs> ah, ma bàyyil musa Bokar ah Moussa Bokar histoire retiendra musa Bokar war nako bay duma du ma ko bàyyi li ma def daana naqari sëñ Babacar daan bëgg xey di sétan dé sé animé du musa sétan du mëna sétan dé sé animé manako manako musa ma ne ko Bokar jaama coupe internet hein am nga sëñ Babacar loolu laa koy defalé elage maa tay tey bi walay lay fogal dégg nga dégg nga aaram sam-sam gi xalé yi lañuy la gërem fooyee coupe internet ay ci C'était juste pour rire un peu, mais quand même, euh, pour dire vrai, l'affaire de, de Moussa Bokertiam et de Baba Diagne, quand même, les avis sont partagés, il, faut, il faut le reconnaître. Aïe, nous avons un journal, euh, euh, Le Soleil nee na mhm. et mat pour Sonko. voilà ni mu dem nak ci tentative nak ngir daal di bokk ci ci njogante euh, présidentielle yi mom Ousmane Sonko nag nataalem fës ci li nga xamni modi euh, moo di kay euh, Le Soleil niki dem nak nag moom mi ngi won fi nga xamni nak ay avocat plutôt ñu ngi woon ci caisse de dépôt consignation bokk na ci également mandataire am waye it ba ñu ca demee dañ leen daal di tëjal buntu ya bañ ñu ca itam dem nañ fi nga xamni nak modi ministère de l'intérieur foofee également dañ leen daal di tëjal sen buntu mu melni nak mom Ousmane Sonko kon lu jëm ngi ñu dugal ak ko ci liste électorale yi nag euh, daanaka euh, coono ga nag euh, jeexagul ndax gannaaw daaf ñoom ñi le nag dañ leen daal di tëjal seen buntu tax nag ba solo yëglekaay xëy également dikkaat ci ci nu mu gën a yaatoo ci li nga xam ne daal moo di seen xët bu njëkk ayca gannaaw loo solo ñu jàll ci beneen yéenekaay lu mu daal di xëyee bés bi le jour de Blue News qui barre sur la une jama

fi nga xam ne nag euh, moo di euh, Sénégal loole di xabaar yoo xam ne waa bés bi le jour euh, xëy nañu ko daal di koy fësal également wàllum nataalu usman Sonko ci xët yëglekaay bi le moom Ousmane Sonko coowam ak Mame Mbaye Niang daanaka nag jeexagul ndax justice dana ko càmbaraat lu ko dalee ñeent fan ci weeru janvier loolee également daal di nañ ci dikk ñi nga xam ne nag moo di suñu naataango yi mu ganaw gannaaw bi le jour ñu seet yi beneen yéen kaay tamit lu mu daal di l'observateur daal dinay xeyé l'enquête bu ya ci traumatisme des femmes victimes d'agression sexuelle muy nak ay témoignages yu yato yaatu yo xamné euh, Seydou Nourou nang ko waxé suñu ay confrères euh, l'observateur xey nañu ko daal di sekk ak ñenn ño xamné euh, dañu amé nak ay victimes d'agression sexuelle Manam dañu dalon seen kaw ci nak témoignages yo xamné nak am nañu ko ñenn ci ñom fa lañu jëlé amé nak ay jafé jafé ñeneen ci ñom nak fa lañu ñu bañ sëy ndax nak lu jëm ci nak goor mbaa sax

soppé ko tax nak ba ñen ñoo xamné seen xam-xam màcc na jëmale nag uh, ci uh, li mel nak uh, daal dinañu sekk waxtaan ak wa l'observateur xey nak di jangat li nga xamné modi taxawayu Amadou Ba ak nak chance yi nga xamné ne mënees na ko am ci li nga xamné mo moo ñeel élection présidentielle atum 2024 mu nga ñu jall ci beneen yéenekaay bien sûr gannaaw l'observateur qui contrôle la justice mom la l'enquête daal di xëyee mom la l'enquête daal di xëyee laaj la nag bu mu daal di samp gannaaw ab dossier politico judiciaire yo xam nak dafa daal di ak Ousmane Sonko ñom nak l'enquête la ñu daal di wax euh, modi nak lu jëm kon ci euh, verdict ba sax procès yo xam dafa dal lal Ousmane Sonko euh, day daal di tegaloo loolu ba tax nak ñu daal di samp laaj jëmale ci walum justice bu Sénégal ndax mom opposant bi lé du Ousmane Sonko am na rendez-vous ak ki nga xam nak modi moo di Ciowal Prodac ni ki fan ci wéru atum ñent fan ci wéru janvier atum

témoin du doyen Mamadou Omar Ndiaye, mhm. euh, qui nous parle de Karim Khalifa Sonko, incertitude sur leur parrainage.

loolee nañu ko daal di fësale ci li nga xam ni euh, moo di euh, xët yëglekaay bi lee di euh, témoin quotidien mu xëy daal di fësal li nga xam ne nag moo di seen nataal. mu ngoog gannaaw la témoin ñu seeti beneen yéenekaay lu mu daal di xëyee Walf Quotidien. Euh, mi nga xamante ne na Sonko se fixe au sept sages. Ah, voilà nee na moom nag euh, soo mooy foofee nag la daal euh, mën na mujj di ci def li nga xam ne nag mooy bu mujj moom Ousmane Sonko milé ndax nag gannaaw bu mu demee ci li nga xam ne caisse de consignation ak ministère de l'intérieur intérieur ba ñu tëjul ko nag seen ay buntu moom Ousmane Sonko so moyul nag dana dem ci li nga xam ne nag di conseil constitutionnel di juróom-ñaari sages yi ngir nag déposé fa li nga xam ne nag moo ñeel candidature am loolee nag mooy loo xam Walf Quotidien Euh, xëy na ko nag daal di euh, fësal ci euh, li nga xamante ne nag moo di xëtëm bu njëkk wàllum anémie jëm ci gone yi ak muy tout tànk yi ak ñi nga xam ne ñoo di soxna yi Sénégal nag nee nañ nekk nag ci zone rouge ndax nag li ni mel buñ ci jógul mën na indi ay jafe ñi nga xam ne ñoo di kon soxna yi waaye également ñi ci nar a gën a loolu nag di ñi nga xam ne nag moo di tout tànk yi loolee également nekk ab reportage bu yaatu yaatu boo xam ne waa Walf Quotidien xëy nañ daal di ci dikk Aïcha euh, gannaaw Walf quotidien ñu séti benen yene kay lu mu daal di xëyee après Wolf ñu dem ci Sud Quotidien mi nga xamantene Sonko sur tous les fronts. Euh, Sonko mom ci jëm bopam xamagul ba xam ndaxam dinañ ko euh, dugalaat ci liste électorale am déet en tout cas kon lu jëm ci démarche yi daanaka ba légui ci nak sotégul té lu moy lolu également mom Ousmane Sonko bi lé amna benen audience bo xam ñël ciowal coowal Prodac bu doxone digganteem ak Mame Mbaye Niang dinañ ko atti wat nak niki ñent fan ci wéru janvier atum 2024 journal bi nak dañuy xamal ni bobé boobee euh, procès nak soo moyul euh, bokk na ci li gëna dangereux ci Ousmane Sonko ndax nak bu fekkee ni euh, ñom dañoo daal di kon dëggal li bayé ko won ci cour d'appel mom Ousmane Sonko nak kon chance am ngir bokku ci élection présidentielle yi nag dafay daal di jeex lolé nak mom la wa Sud Quotidien xey également daal di fësal ci li nga xamné modi sen natal

Euh, ab taxaw seetlu la euh, boo xam ne nag euh, taxaw nañu ko def nañu ko jëmale ci parti socialiste seen ëllëg waaye également li nga xam ni nag noonu la ñu taxawee ci langum politique bi ak investiture bi nga xam ne def nañ ko ki nga xamante ni nag moo di Amadou Ba ngir nag mu teewal leen ci njogante présidentielle loolee lépp nag boo xam ne waaye yor yor xëy nañu ko daal di def jëmale ci li nga xam ne nag moo di parti socialiste waaye nag li nga xam ne moo di jafe-jafe ba ñu daal di ne jamono ji keneen koo xam ni mënees nañu ko gis ci xët yëglekaay bi euh, di amina Touré mom nak muy samp laaj euh, jëm ci walum notion de droit de euh, walum notion d'état de droit fi nga xamné nak modi Sénégal néna nak lan mo dess ci li nga xamné nak mo jëm ci walum droit état de droit fi nga xamné nak modi Sénégal ab laaj la bo xamné ne samp na gannaaw nak jafé jafé ñeel walum politique yi nga xamné ne fan yëpp nag ñi ngi koy nemmeeku fi nga xamné modi Sénégal mu nek laajte bu am solo mm-hmm. <coughs> Libération, bien sûr, avec euh, ces enquêtes et ses révélations, qui est revenu sur euh, la mort, l'assassinat donc euh, dont gérant de station service à Touba. wa mu mel nak enquête ba mangay daldi daal woy ndax nak ñi nga xamné ne jàppoon nañ leen ci euh, te ñu euh, jàpp ni kon seen loxo dafa laale ak li ni mel ñom ñooñu nak daldi nañ leen déféré pour complicité de meurtre l'olé nak le wa Libération xey nak daldi xamlé ci fatali mom moy nek ab gérant des stations service ci Touba nak dañu ko daldi di ci anam bu ñaaw a ñaaw tax nak ba jamono ji kon ñaari pompiste yi nag nekk ñaari pompiste yi nekkoon foofee ca euh, fi nga xam ne moo di station ba euh, ñoom nag la ñu daal di euh, teg loxo ba leen loolee la libération xëy daal di dikk ci li nga xam ne nag moo di ci xëtam bu njëkk say également wàllum coowal Ousmane Sonko ni ñu ko waxee ak kon li nga xam ne mandataire ak avocat am démb nag ña nga ministère de l'Intérieur. intérieur waaye dañ leen dañ leen tëjal li nga xam ne nag buntu ya ak CDC L'olé également mu nees nañu ko gis ci xët kay bi di la libération mu ngoog ñu jàll ci beneen yéene kaay public xam naa di ngeen ne lii ban yéenekaay la. Mhm. <laughs> le public <laughs> yéenekaay bu bees la. bu bees la bu bees la. waaw. waaye li tax ma taamu ko. une bi ci nekk moo tax.

di xaar ngir nag càmbar li nga xamni ni euh, moo di pouponnière boobee nga xamni mom moom Ndella Madior Diouf dafa wax ni euh, nak euh, mi ngi en toute légalité ngir nak ñu daal di xool daal ana lan mo ci daal di am te it bébé yi aussi anam bi nga xamni nak nag noonu leen noonu lañ leen daal di tëyee loolee nag le public xëy fësal ci li nga xamante nak moo di xëtam bu njëkk Guinée Bissau Umaro Embalo Sissoko mom nak nee nañ daal na limogé li nga xamni ne di premier ministre 8 jours après l'avoir nommé donc juróom ñetti fan kep la mu tabb Sonko euh, moom nag daal dina koy euh, kon euh, dakkat ci li nga xam ne moo di poste ba Seydou Nourou. maa ngi gis nataalu Adama Fall quoi dafa am grand yoo xam dañoo war a làqatu quoi. Mhm. j'ai bien aimé la réponse de Cheikh Oumar Talla Ndoumbelane vendredi. mi grand bi nekk foofu di tartal mu ne ko grand. yow barki de mënoo woon bokk ci beneen coalition tey nga bokk ci beneen ñoo fi naan ñuy jox ay leçon de morale yu delloo wu jàmbur mais c'est vrai ces gens là ñooy nekk ci télé yi di ñu tympaniser mhm.

il faut qu'on apprend à bannir certaines personnes de la société j'ai une fois regardé une vidéo à un député béninois il a ci un village <coughs> alors ils viennent les villageois jox leen ndoxu pour leur montrer que nous sommes Ils Si bu 8 8, 4, ils une enquête parlementaire après suivi mais dañ leen forcé ñu naan ko. foofu la ñu war a egg ak suñu njiit yi fa la ñu war a egg ak ñoom. parce qu'on ne peut pas leur donner des privilèges tout ce qui va avec. mais grand yi dañuy nekk ci télé di wax loo xamante ne xale bu ndaw sax xam ne du dëkk. mais et puis dañ koy wax di ci insister. avec arrogance avec indiscipline. je suis désolé

moi je suis présidentiel pour suis royal moi si vous m'avez coûté 9 000 euros la nuit. 19 suites juniors, 3 800 euros la nuit. Et 7 chambres de luxe, 1 500 euros la nuit. Madame selon le journal, vous avez mm 450 000 euros. Qu'est-ce que vous avez fait 450 000 euros. Qui hôtel hôtel si c'est seen billet d'avion il ak yeneen loolu lañ dépenser mais loolu ça ça ne surprend pas parce que aussi ak délégation bi bi àndoon ak mom mais mais ces hôtels de luxe là. hôtel bi c'est un hôtel de renommée ñepp xam nañ ni li hôtel de luxe là ah. légui qui kii le président def Oui, wa ak délégation ba àndoon ak mom bu président de l'hôtel ak ah, en tout cas. 9000 euros la nuitée nga ci fana di yeew. Ah, on va en parler tout à l'heure li du ñuy je suis désolé quand vous voulez nous gouverner quand même comme ça mm-hmm. Hein Hein 225 millions. 225 millions. ah war hein? ëpp. war 450 000 euros. c'est environ ça c'est environ. environ. à peu près 200. 92. presque 300 millions. juste pour.

accompagner euh, lolé nak euh, moy dal euh, lo xamné ñom wa Sénat américain bi dal xey nañu ko wax nañu ko te ñi nga xamné modi wa l'info xey nañu ko dal di defaat ci li nga Seydou modi sen xëtt bu on va terminer avec du sport bien sûr avec le stade.

di euh, Neymar mom nag gannaaw blessure yu mu amoon ci wéru octobre euh, daal nañu ko euh, forfait fi nga xamné ne modi Copa America atum 2024 lolé également xibaar bo xamanteni xamante ne Quotidien xëy nañu ko daal di fësal walum Ligue un choc entre Casa Sport ak li nga xam ni donc Seydou choc le contre Casa Sport ah hein, dimanche voilà AS speaking donc mi ngi noonu loolee également ay xibaar lo yo xamné jëm ci walum kon tagat yaram bo xamné ñom ñoom nañu ko daal di fësal mu ngoog ñu jall ci yéenekaay bi di suñu lambe mm. euh, qui est revenu sur l'open press de Reug hier

loolu euh, le euh, le en attendant de nous retrouver retrouver ici euh, nous allons commenter quelques points de l'actualité bien sûr avec Abdou Laimbo, il y a pas mal de points qu'on va commenter aujourd'hui quand même bi ci Abdoulaye la question que que se pose bien sûr l'enquête journal de l'enquête mu qui contrôle la justice alors qui contrôle la justice

andil defal li nga xam mom la ñuy fact checking. un peu mm-hmm. un peu de fact checking. dellu ci ginaaw nga def séquence des vidéos nga seraan lepp nga xam ni effectivement lu bari wax na ko si loo xam ne jamono ji jaxasoo bi ñu si constaté def naa ne am na si wàll. Mm-hmm. Euh, léegi nag justice moo di justice justice pouvoir la. Mm-hmm. te justice mooy pouvoir bi nga xam ne la mu génnee si si si ndogal amul par parloo déggoo sax ñu les décisions de justice ne se commentent pas le décret présidentiel lu mu kawé président lu mu kawé kawé kawé don gardien de la constitution chef suprême des armes bla bla bla bla bla bla etc. lu mu bind lu mu xaatim lu mu wax nit ñi dañ koy jàkkaarloog mom critique ko ñi and ak mom si loolu and ak mom si loolu waaye justice ay la yoon bu xasse ba grande justice dañ naan que la justice a été rendue au nom du peuple sénégalais C'est tout askan wi la ñu génnee li nga xam modi décision yu bàyyi ko si yoon

juge boo xam ne si àqulay taalaayam la waxee si njàngam gu kawee la waxee si xool interpréter lii nga xam moo di yoon xam ne lii moo di dëgg ci moom te mu amaana jiital ci yàlla mhm. joxe ab décision nga ne maa bañ duma dama siy toog ñu nga dem cour suprême cour suprême na leen waa léegi sax yóbbu naa leen fii pour ñu àttewaat leen nga demati foofu juge bi juge bi nga xam ne moo nekk Ndakaaru

Qui a fragiliser mais qui garantir l'exécution des décisions de justice c'est un moy exécutif. manam mhm. njiitu rew ak gouvernement té tay jii le xol exécutif bi lu ci patch exécutif bi mo ne exécuter décision de justice. Mhm. direction générale des élections direction de l'automatisation des fichiers kan moy le patron. ministre de l'intérieur kan est ministère de l'intérieur Sidiki Kaba kan mooy Sidiki Kaba militant APR kan mooy patron Macky Sall président donc je pense qu'aujourd'hui li ëpp solo mooy exécuter li taxout ñu ne la diw ak diw dañuy don candidat jamono ji kenn xam ku kuy don candidat le seul gendarme de l'éligibilité le seul gendarme de l'inéligibilité s'appelle le conseil constitutionnel léegi nak jox len ko fiche réintégrer len ko ba pare ñu ne len exige et ordonne ba pare ñu ne len décision bi elle est définitive et exécutoire waaw lan moo jar interprétation l'article l'article euh, L47 du code électoral est clair précis limpide Net. sur la question léegi la moo fi jar ay non non duñ defee ne duñ buñ demee ba administration naan dañoo njortu ni dem cassation ni ah, ni gouvernement day dem cassation njort dañ ko njort moo ñun dal duñu joxagum comme dañ ko njortu rek dañu xaar mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est dangereux d'ailleurs. Oui, c'est dangereux. Très dangereux. Il faut être de mauvaise foi. Mm-hmm. Très mauvaise. Pour voir ni lu doxalé ni yoon la. Gis nga Sonko ak benen opposant, benen opposant bu mu doon ku deful yoon dañuy taxaw ne Sonko ak yow li nga def ci yoon. Mm. man yàgg naa wax que ni si communication Sonko yàgg naa ko disséquer mm. si ñu may laaj. Mm. ma ne lii d'accord ma si. Mm-hmm. lii dérive la. Mm-hmm. Li ça va na ko wax. Mhm. li bu mu ko waxati Li, erreur la mais ñaata yoon. Mhm. mais pourquoi légui légui mbir jot ñune non non euh, ni ñu ko waxatee boo waxee rek ñu ne la pas lan nga en réalité nous sommes tous sénégalais. ñun ce que nous importe c'est la stabilité du pays. Mhm. ce que nous importe c'est la paix dans ce pays là. ce que nous importe c'est le respect des gestions. président moo def discours. ne dina de dina taxaw ba ñu exécuter toutes les décisions de justice ah xanaa boobu nag da nga dañoo foogoon ni décision de justice yi opposant rek lay concerné mhm. waaye décision de justice si bu concerné sama cas moom on n'exécute pas

bu baax a baax dañuy sukkandiku ci loolu pour mën di nax nit ñi. waaw mais xam nga nax nax nax loolu nax nax nax nit c'est-à-dire que la gis nga loi loi la. Hmm. bu ñu yeggee si cappaandaw ga. fa fa ñu àttee mbir mi. ñooñu bu ñu xoolee daa ñu xam liy dëgg daañu xool lu dul dëgg ku àttee nag si sa akulaay taalaay ni magum magum juge ba doon waxee rek. Hmm. man ak sama moroom bu si bañ tëdd guddi jéppi sa bopp. ku si bañ a tëdd guddi ba jéppi sa bopp. Hmm. fexeel nga doxal li yoon te ay la yow man yàgg naa ko wax. man yàgg naa wax ni dañu ngi wax lu nekk magistrature bi mais man li ma gëm man li ma gëm mooy magistrat yi jub cest à que dañuy fee ne gàññ dañu fee tuur yàgg naa wax yàgg naa wax fii ak feneen que ni magistrat juge bi maanaam euh, parquet beeg wala keneen ku mu si mun doon day génn bureau dugg si jumaa ja jiite yàgg naa ko fi wax mm-hmm. yàgg naa leen wax ni magistrat juge am na si ñoo xam ne c'est-à-dire ay xaafis Quran nañ dañoo jàng téere bi maîtriser ko xam ko xam yàlla wax xam lan la yàlla wax si kii attee ñett attekat yi ñetti ñan si ñett ñi ñaar ñett ñoo si dem safara ak yu demee noonu loolu dafa leer nga jàng ay xaddiis jàng leneen ak leneen ñu wax la lii si attekat lii la mais dama ne ku si def yëfu maa tey nag waaye suba su ëllëg moom saay borom tey na la maa tey nga xam ne yàlla yàlla gën a ëppale maa tey voilà <laughs> donc donc donc aussi simple que cela mais mais gis nga tey ji nii daal si le dossier bi ñu aujourd'hui en réalité sur le plan international on nous regarde autrement. maître Saïd maître maître maître Saïd Larifou bi nga un avocat Sonko la. Mhm. dem na ba euh, Nations Unies jooytu ko fa wax ko fa ba lettre adressé au secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Mhm. dans le monde aujourd'hui l'intelligence à travers le monde de tous secteurs, tey jii nii am a bët bu ñuy Sénégal te régime

cour de justice de la CEDEAO génne décision état du Sénégal ne appliqué wu ma ko dama siy toog kon nguur gi moom mooy nguur boo xam si lu jëm si wàllu yoon décision yoo xam ne jëmalewu jëmalewuñu ko ci moom si lu ko arrangé dañ ko see daan mu ne du ma ko def defe naa nag loolu <laughs> war foog ñu wut benn tur. est-ce que président am na prérogative yooyu noonu. déedéet mukk si àddina

ay jabaram taxaw ne kenn du fi appliquer décision bi. waaw lu mu jural. c'est un antécédent très dangereux. lu mu ñuy lu mu ñuy jural. Mhm. il faut que l'on respecte la justice. nañu respecter justice nañu delo cër justice. nañu delo cër magistrat yi. na len bay ñu liggé ci sen akulay talay lu ñu àtte ñoom xam nañu ndax jaar na yoon wala jaarut yoon. parce que ku tëdd guddi wet ak sa sa biir néeg toog ak sa njaganaay di nan sa café wala di sirote sa ataaya di nga xam ne tey li ma def ndax yu jaar na yoon wat jaarut yoon. et l'histoire retiendra qu'on le veuille ou non d'ici vingt ans d'ici trente ans di nga dégg ñu tudd ay tur ak la ñuy wax si ñoom lan lay doon di nga dégg ay tur nit ñaanal leen ñaanal gi lu baax lay doon wala safaan la yàlla rek a xam hmm. kon boog la sa gën mooy nga def li gën te li def li gën mooy wax liy dëgg te jëfee liy dëgg hmm. donc justice daal amul loo xam ne dañ ko si war a naatable hmm. justice bu daanee fii waruñu ko xas bu daanee fee waruñu ko xas encore une fois. c'est-à-dire que interpréter selon vous, ni dal pour taw di xass yoon. parce que daan Ablaye Mbow. na suba mu dan Tierno Ablaye c'est-à-dire que en fait justice warul nek une justice bo xamné dañ fay partisanerie. c'est-à-dire que tant que ñi ngi am victoire waaw fama faré donc il faut quand même yooyu tam ñu moytu ko xam ne rek yoon bu ñëwee yoon la parce que tey yoon jox na dëgg Ablaye Mbow suba yoon mun na bañ ñàkk jox dëgg Ablaye Mbow c'est tout wala su am solo rek mooy kaate mm. ndax am àtte si dëgg euh, te je pense que ne ñëpp euh, li ñu gis fu mu nekk nii et comme on le dit euh, ku ci ku ci waxul rek ku ci noppi ku ne voilà état de droit moom bu ñu koy salfaañ ci réew parce que même barki démb maître Clédor disait ko même le huissier bi nga dafa ñëw pour def liggéeyam ñu tere ko def liggéeyam c'est un précédent dangereux. ah mais parce que bu souvent service public bu nekk mun naa bañ loolu ah. mais direction générale des élections moom moom xanaa moom direction générale des élections de Benno je ah. pose la question. mais non la direction générale des élections c'est une entité bu bokk ministère de l'intérieur. Mm-hmm. man ak keneen kuy citoyen am fa àq am fa yelef mm-hmm. donc buñ fa ñëwee aajowul ñu koy barricader bay brutaliser. ab avocat wala di brutaliser ab huissier aajowu ko ñëw naa ñu ngi si période boo xam ne yow DG yow kañ la lay tudd yow DG élection mu amee rek lay tudd ah si élection bu amee rek lañ lay tudd. ñooñu kay ay contrat lañ lay war defal. voilà ñooñu waruñu yow wuteeg prestation de service lañ <laughs> direction yu fi nekk yoo xam ne du lundi au dimanche janvier à décembre ñu ngi liggéey si coono ak ak ak ak jafe-jafe askan wi. yow élection ba élection lañ lay lañ tudd. yow lu dul élection fàtt nañ la. ah mais nga doxalal yoon rek. ça te quoi nga doxal yoon dara. tey jii nii dëgg ko fa toog dañ ko fa teg. amana jox nañu leen euh, euh, ordre parce que première réaction ba jiitu. moy nous avons des nous avons reçu dangawo dangawoo rek ngay dit waaw des instructions. donc voilà légui légui lan mo ci am. je pense que joxe fiche parrainage taxul taxul nit ki nekk candidat. mais yone mo ne. yone mo ne dougal len ko ci liste yi yaa ngi dégg te buñ ko xasse bu dougal ci liste il est électeur. Mm-hmm. te bu nekkee ci bir liste yi la sa topp mooy këyit ci gumu soxla ko jox ko. Mm-hmm mais Amla, est-ce que nous avons aussi def nañ dara c'est-à-dire DGIE moo xam muy DAF moo xam euh, est-ce qu'aujourd'hui la responsabilité n'est le ministre de l'intérieur en personne. Ah, parce que lii aujourd'hui moom mun na corriger. Ah, mais depuis dégguñu ko du communiqué du dara. ministre de la justice également là c'est la même chose. Oh, hier j'ai entendu ça, le dire que ministre de la justice dafa war démissionner. ça. <laughs> Mais le wax naa la le prononcé. Je la la est kan chef DGE patron DG kan la du la chancellerie. Uh-huh. mané la chancellerie bi kooku incarné du Sidiki Kaba. Uh-huh. Sidiki Kaba ki mu doon du ministre militant la. kan moy patron Sidiki Kaba. loolu la amul leneen décision de justice tey jii nga am ministre de la justice. Uh-huh. yaa ngi même bu fekkee juge bi il est indépendant la wax libre indépendant parce que lu taxi moné le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Ouais. dégg nga n'est soumis qu'à l'autorité de la loi uh-huh. Mon ben patron la moi loi comme direction générale des élections le am patron ben patron la moi code électoral uh-huh. la direction générale des élections n'a qu'un seul patron c'est le code électoral grand est-ce que le problème bi que si ni ñu tëggee suñu loi loi et règlement aussi parce que nous gis benn comme ni ko Mounass une léegi Il loi mu am ay une interprétation yu que ku nekk naan man nii laa ko eh, déggee ah mais dafa doy waar mm. interprétation yi di la xam nga day jubadi la la naan dañ la naan droit nono non interprétation non non dama ne nga jubadi la gis nga jamono ji Sénégal c'est léegi sénégalais jaaykatu caab bi sax léegi juriste la waaw jaaykatu caab léegi juriste parce que teg nañu teg nañu su ay dossier dossiers yoo xam ne mm-hmm. ku si nekk léegi xam nga luy contumace gëstu nga ko mm-hmm. ku si nekk xam nga léegi lan mooy direction générale des élections lan moo di rôle ku si nekk xam nga conseil constitutionnel lan moo di rôle am ku si nekk xam nga code électoral bi c'est-à-dire que da ngay laaj di certain di déglu di def lu ne léegi ñëpp juriste lañu gis nga loi bi dëgg la naam di nga toll benn niveau spécialiste moo la mën a koo mën a tojal mhm. mais loi la lan la ñu wax nul n'est censé ignorer la loi mhm. étant donné que nul n'est censé ignorer la loi toi et moi devons lire la loi et la comprendre point mhm. aussi simple amul leneen léegi nag c'est-à-dire que des fois nga toll situation xam ne dafa am ay mercenaires ak ay mhm. envoyés spéciaux. di jaxase xelu ñu lenn kese moo leen moo leen euh, soxal naka la ñuy naka la ñuy dévoyer li nga xam ne mooy l'ordonnancement par rapport ak nañu bindee loi bi ak loi bi lan la wax. xam nga tey jii nii ngi dem sax ba la euh, ku ñu tas parteem mënoo doon candidat si période un an. Mhm. loolu loolu excès de pouvoir lay sax lay lay lay gën a jege. tas parti. ndax yow man dama nekk candidat. daa yor parti. bi yor moom lu tax tasul parti am muy war a nekk lu normal que ni tas parti du doo jékki-jékki rek ne kii Mariama parti am neexuma ma tas. ko non bien sûr bien bien entendu mais. tey nii parti yi ñu waroon tas yi bari na. tey nii bu ñu sukkandiku woon si loi 81 modifié en 90. xaw ma 91. Ah, mais ku deful dépôt de bilan financier. au, plus tard le 31 janvier de chaque année mais là parti d'une ko parti parti depuis le code euh, des obligations civiles et commerciales ainsi que le code électoral en son article L57 amul avons fait candidat indépendant sur un an waaye bu fekkee da ngay dem nekk candidat faw ab parti politique légalement constitué wala coalition de parti politique légalement constitué porte sa candidature mhm. tey jii nii euh, Ndiogu mhm. Boun jonn mun na dem nekk candidat indépendant dans les normes non mënu ko sur un an mënu ko mhm. pour qu'il soit candidat il faut ah, parti ak coalition de parti porte candidature mais tey jii nii candidat indépendant moom si wàllu boppam le candidat indépendant candidature parti politique mun na koo mun na mun euh, porter porter c'est une coalition d'indépendants comme ni ñoo ko mun a porter mais quoi parti mun na ko porter yaa ngi dégg. léegi nag un bout d'un bu duggee si parti politique su boobaa les choses les choses changent. loolu kese la amul beneen interprétation. mu nga cest à fi gars yi ñoo bëgg di guddal rek. bilaay di rek di rek toog ci télé di interpréter justice bi nu la neexee di rek. te leer nañ ne. c'est droit bi ci boppam bu ñu demee ba tëdd xam ne li ñuy wax du dëgg. xam nga lan moo garaaw. Mm-hmm. ngay wax lu dëgg boo ñëwee nga xam ne man mii li ma wax ci télé bi. ay kàcce la gis nga gis ngi droit gis nga il a pas il n'y a pas un droit de droite. il n'y un droit de gauche le droit c'est le droit. c'est le droit c'est écrit noir sur noir sur blanc. mais man man man moom li ma jàpp mooy même kiy toogaat après war na revoiraat loolu quoi. non liñ fi moom liñ ñu war bari na pouvoir yi état chef d'état état yor ak yi procureur yor ak yeneen ak yeneen li ñu fi wara xolaat bari na mu ngok ñu jall ci leneen rapidement gannaaw euh, mbirum Ousmane euh, Sonko alors euh, d'ailleurs, il y a y a y a qui a qui interpelle l'ancien <laughs> militant des droits de l'homme qui est le ministre Sidiki Kaba xam nañu c'était un militant des droits de l'homme donc bu ñuy bafoué droit wu nit tay je pense que Sidiki Kaba war il doit pas fermer ses yeux sur ça alors euh, wàllum Amadou Ba express limu mu tay euh, Abdoulaye euh, ñu ngi ko doon ruumandaat fan yii yëpp par rapport ak les dépenses de l'État ak ni fi dëkk bi tollu tay Sénégal nu metté jamono metti ñi ñi sonn gor góorgóorlu sénégalais di lijjanti ni muy añ ak nu muy réré ak muy voilà quoi nu metté on nous on nous dit que le gouvernement a dépensé presque 300 millions juste ci wàllum hôtel. Ah. ci ben séminaire bo xamné dem nako fa. Ah. les billets d'avion ñëwagul. comme tu l'as dit yenen ak yenen ñëwagul. te la ci ñu cité am na yoo kenn cité wu alors si quelqu'un qui veut diriger le pays est-ce que si ça c'est un exemple. non xam nga hmm, wax nga ko tool euh, l'Express mu génne na ko mais fan yi pa yépp ñu ngi doon dégg. légui nan nag ndax amna ko amut. waaw xam nga quand même il faut toujours relativiser. toujours relativiser bu fekkee niñ ko bindee ni la demee. Mhm. te noonu la amee. Mhm. defe naa ni nag euh, du mbir boo xam ne dañ koy war. war mais ñëpp xam nañ ne quand même bi mu dëkkoon moom. waaw ah, non hôtel bi moom ñëpp xam nañ ne hôtel de luxe la. waaw ah, léegi bu dee lii nag du lii moom xamuñu mais hôtel moom xam nañ ne hôtel de luxe la. ce qu'on sait aussi ce aussi délégation bi la ca ànd. bari la ca àndoon bari na. Mm-hmm. la ñuy yóbbu si ay nit itam bari na ko. Mm-hmm. ndaxam am na ñoo xam ne sax jàpp nañu ni am na ñoo xam ne jëlee nañ leen fii. Mm-hmm. pour ñu dem tamit mën a bokk si ñuy feesal saal yi. wax nañ ko. maintenant mm, du loo xam ne nag si siy ànd. Mhm. parce que yow tey jii nii man je fais partie de ces sénégalais là xëy na ki na tire pas le diable par la queue. Mhm. mais qui tire le diable par le du poil de la <laughs> donc de ce point de vue jàpp naa ni euh, ñun suñu ay autorité ba ñuy déplacé wu waruñu mën na. le président des États-Unis d'Amérique bu ñëwee fii Sénégal. doo dégg ñu ne la ma nga tradition wala ñu ngi mën nga amaat seen ambassade ba amaat. yaa ngi parce que tabax nañu loo xam ne ah euh, buñ ko xaymaa si si ngandawaay ak tolluwaay sax suñu bal bi daanaka. daanaka bëriwul de. waaw parce que États-Unis kay. donc buñ la nee mhm. premier ministre de surcroît. Mhm. bi nga xam ne mooy doxal vision président Macky Sall. ak jafe-jafe yi nga xam ne moom xam na ko Sénégal am ko Sénégalais yi am ko ñu dénombré près de soixante mille morts depuis 2014 jëm si immigration clandestine bi dëgg la naam ñëpp du si Sénégalais. Mhm. ay jeunes di jaaree Nicaragua di daw. Mhm. te du jeunes yoo xam ne ay chômeurs kese la si biir am na ay liggéeykat. waaw dara tudd nañu ay enseignants sax yoo xam ne jël nañu gaal. waaw nga gis baykat yi nu ñuy dundee coono gi nga gis jamono di secteur bu ne. daanaka euh, am na am na am na am na jafe-jafe am na tawar. Hmm. bu ñu nee lii bu dee lii ñu wax noonu noonu la demee nag moom ay la yoon euh, jàpp naa ni nag amul benn Sénégal su war a am. Hmm. parce que tamit euh, dañoo war a bàyyi boo xoolee France par exemple président bi. Hmm. ak gouvernement oto yi ñuy dawal même bu fekkee ni sax woto wa dans sa conception. modèle la boo xam ne bokkul ak modèle normal yiy daw. mais xam nañu ay woto la yoo xam ne si marque ba parce que seen marque la ñoo ko. dañ koy promouvoir mhm. mais oto yooyu da ngay xam ni en ah. yeggul ñun ne dañu mhm. ah, ah oui c'est loin. parce que tey nii man da ngay gis euh, poste rock ñu la mais benn nit yore juróomi oto juróomi oto foo juróomi oto cër yi loo koy doyee. <laughs> foo ci yéeg. foo foo fooy dem ak moom juróomi foo ci yéeg fan fan. kër gi bu ñu dee cinquante consommation nga gis koo xam ne day ñëw gaare wotoom clim oto bi du fay hmm. ndax lan bëgguñu mu tàng oto bi du fay parce que bu fay clim bi day fay da nga koy bay muy rouler da koy xaar autant de minutes xam nga man ti xam nga man tiwaaw xam nga man tiwaaw damay dox rek mais auto ministre yi dama leen di romb plus de cinq heures de temps may jaabante diggante résidence fee ak fee mais oto bi du fay huit huit yaa ngay rararararara ma naan waaye kii xanaa jëndul essence waaw jëndul essence léegi nag lii nag bu ñu demee ba France bu dee noonu la demee. je pense que du exemple boo xam ne daal war nañ ko war nañ ko pro pro promouvoir. ñun war nañu mën a fexe tey nii am suñu ambassade ba nekk Paris. Mhm. kilifa yi bu ñu fa demee war nañu leen mën a aménager defar leen foo xam ne bu ñu fa ñëwee war nañ fa la ñu mën a dal. Mhm. aussi seen président tey nii bu déplacé woo dem Sédhiou su gouvernance ba lay lay lay lay fanaan. Mhm. parce que amul hôtel hôtel hôtel hôtel bu bu kii. yaa

sol bassin boo xam ne mètre bi vingt mille la. waaw dawal huit huit. waaw ñëw ñëw toogoo na ñëw seet su ko naan ko dama am quinze mille de la la la daan doon def oustaz na kii def maa yëpp. waaw tout <laughs> bu leer sax. te Seydou yàq bi yàq bi ñuy wax nii fii la commencé. Mhm. parce que da ngay xool tournée yi nga xamante ne jot nañ ko def yëpp keroog lu ma doon wax sama benn cousine. APR la bokk ma ne ko xamal lan moomu métti mu ne ah mu ne ko balaa ngeen di jóge fii mu ne ah ma ne ko desitu kees bi yëpp di ngeen a ne ma da nga la li mm. appartement yoo xamante ne cent koy amee journée mm-hmm. imaginez ñaata appartement la ñu ñaata personne ñoo fa nekk seen lekk seen naan seen frais de déplacement yi ñu leen di jox et puis ñi nga xam ne dañuy dem ba France dañuy yóbbaale délégation entre parenthèse Amadou Ba ba mu demee Louga mm-hmm. man jour damaa demoon Louga xam nga Diourbel fa laa mujjee fanaani ndar. ndax. dañoo wër Louga appartement hôtel foo dugg ñuy ne la fees. tous les hôtels de Louga fees. Mhm. tous les appartements meublés de Louga fees. Mhm. te dañ koy jël Serigne Babacar Sy ndar lañ mujjee fanaani ñun. xëy ah, ñëwaat Louga xëy lañ koy jëlee. seen ñoon nekku si ndax cher na wala cherul l'essentiel mooy dinañ leen loger et que bu génnee moom mbaboor googu dina ko topp ñu ne waa Louga génn nañ wala waa Kaolack génn nañ fekk ne délégation bi Dakar la départ dem leen même ba ci France gi ngay gis nii dafa am ñoo xamante ne dañ ciy làqatu yenn passeur yoo xam ne benn Seydou Nourou dafay ne man kat damay yóbbuwaate France damay soxla sa damay jox sa visa ak sa 500000 wala 1 million wala 3 million wala maximum 100 millions hmm. ñu dugal la ci liste délégation bi nga xamante ne moo war a dem ànd ak Amadou Ba soo paree da ngay rocceeku ndànk daal daw

ah bon <laughs> commentaire ne sais wax xam nga Seydou Ndourou. ce que suñu xam nañ réellement. problèmes et aujourd'hui il serait bien intéressant parce que train de vie oh. ah, est-ce que ndax loolu am na

mooy que ni euh, xaalis bi daal nañu xam ne ko askan bee ko moom ah te lépp loo xam ne ñoom dañ ko war di poser comme acte dafa war a dellu si waat askan bi mhm. mu ngoog alors on va on va parler euh, donc de ce de ce de ce problème de scan de ce scandale bo xamante ne ñu ngi koy gis euh, depuis fani yi ci réseaux sociaux mais démb ak barki démb dafa gën intensifier intensifié wu muy le problème donc de cette pouponnière Kër mandé